salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu auzu billah bismillah inni wal yàlla mbokk internet yi nga xamante ni yéen a baaxoo suivre seen télé bi nga xamante ni mooy am Amsa TV mhm. ñi ngi amaat euh, tey mbégte dellu siwaat beneen yoon ci suñu jotaay yi nga xam ne ñi ngi koy faral di amal di ci wecconte ak ki nga xamante ni moom la ñuy jàkkaarloo saa su ne di mhm. Cheikh Moustapha Dieye lépp itam ngir tey doomu aadama yi soxlay doomu aadama yi bëgg-bëggi doomu aadama yi tam waaye itam ak teg leen ci yoonu siraatul mustaqim yi nga xam ne digalu suñu boroom la ci biir solution bi nga télé bi nga xam ne mooy la télé solution Cheikh Moustapha gannaaw bi ñu la nuyoo ziar la dalal la ci biir jotaay bi naan laan salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu sant yàlla alhamdulilah moslu ci seytaani ak di sant yàlla bi nu yàlla dimbalee nu fekke mhm. atum daaw ma mhm. ci màggal kilifa yi tedd yi mhm. rawatina mu tombeek anniversaire lu Serigne Babacar Sy nu santewaat yàlla ci fekke gi santewaat yàlla ci wér gi santewaat yàlla ci xéewal di ñaanal ñi ni teewlu ci internet bi soppe yi bare lool mhm. soppanu lool mhm. wallahi dinu ñaanal dinu ñaanal rekk mu doyoon waaye di ci boole sunuy waajur di ñaanal it lii nga xam ni ñi ngi ciy gisee seen bopp mm, kon loolu amal nañ leen njukkal mhm. bu nu sañoon ku nee la jàbba loxo waaye nee nañ la jàbba loxoy xool te mu gën a foor lu ne di la wax asalaamualeykum wa rahmatullah yow ak foo mën a nekk mm-hmm. di ma ko faral di waxee mm-hmm. di nuyu soppe di nuyu noon mm-hmm. <laughs> macha allah ndax tubaarkàlla ñëpp a niy teewlu nag koo yaakaar ni du nu yër rek mi ngi niy yër ñëpp a ngi niy yër bi feeñ ak bi nëbb tubaarkàlla wallaay waaye <laughs> <laughs> ah, yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm ak sutura di ñaan ci lu tedd lii nu jëm muy weeru koor macha allah yàlla mayoon nu fekk kook daaw ak sunuy nawle ak moroomi jaami yàlla ni ñun te fekke wunu ko ren mhm. am ñu ko war a fekke yal nañ ci yàlla boole am ñoo xam ni it narunu ko fekke mhm. ndax programme sunu borom la waaye nu jëlaat lépp sante ko yàlla ndax lu ko neex mhm. ki moom la ka neex lu ko neex la cay def kon yàlla na yàlla dimbali nu guddal fan yi ba nu man ko fekk ci jàmm ak salaam ci sutura sunu borom ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye di ñaanal ñi ni woo sax tëdd ci hôpital yi wallahi dinu déglu naan bu nit ñu déglu sunu xel day dal waaye di ñaanal ñi ci xat-xat te waroon tal xat-xat ba waaye dinu teewlu ba di fàtte yu baree bare xam ni lépp lu sëriñ Moustapha du seex Talla du seex Sàmba su yàlla la moo tax yal na yàlla barkeen ci darajey rasulillahi di wax asalaamualeykum wa rahmatullah seex Talla maaleykum salaam wa rahmatullah Cheikh Moustapha Dieye ci nuyu bu am solo boobu waaye ci ziar bi waaye itam ci ndokkeel bi macha allah. yal na yàlla boole ñu defal tawféex. te dégg sa kàddu gi itam. te wax dëgg yàlla nangul ñu ko. ci daraja yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wa salaam. fi nga fi nga daanelee rek fa laa bëgg ñu tàmbalee. wala may ñëw ci question yi ndax tey émission bi jotaay bi. Mhm. jotaay bu nar a mucc ayib la. Mhm. ci yëg-yëg. waaye jotaay la bu nar a mucc ayib ci ay mhm. laaj yoo xamante ni mhm. ay nit yoo xamante ni ñi ngi lay topp di la suivre saa su nekk incha allahu rabbi dinañ ci ñëw léegi mhm. waaye bala ñuy def rek gannaaw yàlla dogal na fan yëpp internet yi namoon nañ la gëjoon laa gis xamuñu woon itam Cheikh Moustapha ci lu mu ne woon waaye biñ leen leer leen ah sang bi kat dafa dem ca dëkk ba dem ca cosaan la rooti jiwaat ndaay waaye feddali jiwaat kóllëre digganteem ak i waay juram ñaanali jiwaat waay wa jigéen nga xam ne moom la fa bàyyi ko ak mbooleem waay dawla yi kon tey lan nga leen di nuyu nuyoo ñoom itam gannaaw bi nga xamante ni dem nga ba dellu siwaat ak jàmm ak sama voyage bi dafa bokkaat ci voyage yi may gën a sant yàlla alhamdulilah rabbil alamin ndax dama ci jot ay ijaasa mm-hmm. dama ci jot ay garaat macha allah alhamdulilah xam nga ijaasa dafa am ay catégorie mm-hmm. am ay nombre waaye sama borom daf ma suturaal daf ma dimbali daf ma taxaw ma jot ci boo xam ni sans limite lay tudd waaw akubar tarkaal la sans limite waaw gën a waaw ci ginnaaw timis ci diggante timis ak gée mhm. <laughs> waaw ma jot ko mhm. ma xam ni yàlla nangu na ko ca booru armée la nag <laughs> ma santewaat ko yàlla bu mm-hmm. <laughs> wér wallahi wa rabbul kaaba ndax dafa tombi woon may ñaanal sama waajur ba ngoon jot mm-hmm. jox ma ci lijaasa bu doy waar bu doy waar mm-hmm. xam ni daan naa ko gis nag waaye am na wuute yoo ndax sunuy waajur yi rek la naan. nga xam ni yàlla defati na. Mm-hmm. ndax defal na nu lu ne nag. Mm-hmm. ma santewaat ko yàlla. di ñaanal kilifa gu tedd googu. Mm-hmm. wallahi xam na li may wax. ndeysaan. yàlla na ko yàlla dolli wér. amiin yàlla ko yàlla dolli sutur. yàlla ko yàlla dolli taxaw ak njabootam. ci barke Yonent bi sallallahu alayhi waaw te bi ma koy jox ci joxin wu doy waar. mbokk yi li ma leen di wax mooy. nanu topp yàlla mm-hmm. gëm yonent yàlla muhammad te nangul yonent yi yàlla yónni mm-hmm. te yàlla noonu la ko santaane waaw waaye tey joxe cër mm-hmm. tey moytu tooñ tey muslu ci seytaani tey aaraate aaraate nag buñ koy wax mooy aar sa bopp aar loo mën a aar nee na léeg wolof ni yàllaay aar ma ni yàlla dañu nanu sabablu dogal bi moo ko yor xam nga lu may dénkaane lu waaye baax xeeb ko. lu waaye def ci lu baax xeeb ko. wallaay wax nga dëgg. <laughs> fu waaye mën a jaar ba baax xeeb ko. Mm-hmm. fu waay mën a jaar ba bon fatal. Mm-hmm. <laughs> foo temps boo toog di wax lu bon. temps boobu jël ko nga fexe ba wax ko lu baax. ndax fay gaa ngi ñëw. te loolu laa gëm nag sëriñ bi. li may dénkaane mooy. Mm-hmm. man sax Cheikh Talla sama xel daf daal na de. Hmm, alhamdulilah. wallaahi sama xel daal na. lool sax. Hmm, hmm. waaw sama xel dal na lool. ndax am naa samay ngërëmali waajur. macha allah wallaahi wa rabbul kaaba man sama xel daal na de. <laughs> waaw. am naa samay ngërëmali waajur mhm. man sama xel dal na ci lu ma sañ a wax ak lu ma sañul wax mhm. sama xel dal na ci lu baree bare yàlla na xelu ñépp a dale noonu ci darajay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam man lii rek laay dénkaane li ma ci bëgg a wax sax manuma ci sore mhm. lu mat fukki at a ngi nii li ma diire ci àll bi ma suma diire lu toll noonu bu dee ci réew mi rek la masula am kon leneen la woon Mm-hmm. lépp la kenn mënul wax rek. walaay ndeysaan <laughs> tubarkalla alhamdulilah ah. macha allah yal na yàlla boole ñu ci rogolaat gi bu rogolaatee daal yàlla yàlla buñ ci kenn ëppale waaye buñ tamit yàlla nañ ko bokk ak jaami yàlla yëpp rawatina ñi nga xamante ni nangu nangu nañu te bëgg mm-hmm. nañuy tamit ndax ak mm-hmm. mbaax defe naa ni dara ëpp ko solo ci àdduna donc macha allah na yàlla xeeb te dolli ah. fi ma bëgg a tàmbalee ci waxtaan wi rek gannaaw ndokkeel loolu ak ziar bi question bii dama bëgg mbooleem yi nañ bàyyi xel laaj bi may laaj. wallaay ndax laaj bi may laaj. Mhm. ki ko laaj. su mbokk la. Mhm. xarit la. Mhm. jigéen la. am di jàmm la. wallaay soppe la. ndeysaan waaye ab jullitu yàlla jaami yàlla. wallaay mu laaj laaj bu ko yitteel. laaj bu ko ñor. ci jëf goo xamante ni dañ ko ko jëfoon. mu ne bitim réew. nekk ca France. li tax ma bëgg internet yi déglu déglu ko. mooy dama xam ne chaque jour ñu ngi ci internet bi. waaye xëy na ñu ngi seetaan lu ñu bëgg mhm. waaye ñi ngi seetaan tam lu ñu bëggul te amuñu ci pexe ndax mhm. wéttaliku lañu koy soxla dëgg la waaye li may wax saa su leen mhm. Amsa TV télé solution bii ku koy bàyyi xel ku ne néew ma fa nga bëgg a yegg di nga fa yegg à cent pour cent de waaye bëri na waa loo xam ne ci juum-juum lay doon wala rëq-rëq boo dee déglu boo dee seetaan télé bi doo ko doo doo ko doo ko doo ko def doo la kon nañ bàyyiwaat xel bu baax a baax rawatina ci fii ma jëm yàlla xam na mbokk mi dafa wax ni waaye juróom wu jigéen ak rakam. Mm-hmm. ñoo ne fii ci réew mi. Mm-hmm. jóg di ko fexeel dem ci ay sëriñ. Mm-hmm. jëf ci moom jëf ju mucc ayib joo xamante ni jubluwuñ ci dara lu dul gàllankoor ko àdduna ak àllaaxira ga mu jëm. waaw waaw. moom mu nekk ca France. lu moom yot leen. lu moom jox leen. fu mu toog xelam ne ci ñoom. waaye ñam koy defal. gis nga li ñu ëlbatiku bëgg ko koo fayee. bu nu yemoon ci sëriñ ci ko rek mu neex sëñ Moustapha. waaye sëriñ ya dañoo dem ba ca biir armeel ya jël liggéey ba def ko ci boppub néew mm-hmm. junni ca armeel ya trois heures du matin mm-hmm. ëlbatiku ñibbi si yemuñ ci loola mm-hmm. waaye ne dañ koy fekk ji ba bitim réew ga mu nekk pour doggale ko fa pour mu fee waaw waaw <laughs> benn sëriñ bi nga xam ne moom moo julli woon ci wiir te waroon ko fekke ji ca fa mu nekk ca France waroon ko doggali ji bi mu ñëwee ba Italie dafa def escale ñu xam ne yàlla pare. wala hmm. ko yàlla jëlee ba kanam. wallaaw waaw ne ko yow doo yegg ca moom. Hmm. ki ci des nag mi ngi Sénégal. Hmm. <laughs> def na investigation ba xam ko xam numéro yor ay numéro téléphone Mm-hmm. waaye dañu du ci defagum dara tant que yow laaju ñu la laaj bi yaw sëñ Moustapha Dieye mm-hmm. ba nga tontu ci mm-hmm. moom du ci jëlagum décision donte nag xelam jaxasoo na xelam léeg na waaye xam na ne ànd ndaak ndimbalu suñu borom ndax bu ànd tënd woon na ndimbalu suñu borom ka déparé woon fii jëm si Italie euh, jëm si France escale Italie bu yegsee ca moom kon kenn waxatu ko waaye kooko jotu ta yegsi ki ci des nag moom bu yeboon na waaj te xam ni moom la koy mën a dal xaw duma ci dugg du ma ci débat waaye moom yow lay déglu mm-hmm. lan nga ci mën a wax lan nga ci mën a indi ak yan conseil nga ciy joxe rawatina mm-hmm. suñu mbokk dina dina bitim réew dama lay wax rek ni mm-hmm. du ma jaar si tur dëgg waaye su ma nee sekk rek xam na ndeysaan sama njabootu bopp la nag macha allah <laughs> mi ngi ci réew mii moom ngay wax ndeysaan sama njabootu bopp nga alhamdulilah sama njabootu bopp la macha seetaan Euh, gis nga loolu ngay wax. Mhm. am na ñu bare ñu muy dal. xam nga li gën a métti. Mhm. nit lekk sa alal ba pare wëlbatiku di la liggéey pour nga faatu fa yàllaahu baa sax mu dee jéem a tëj sa gémmiñ baa mu tëj sa wërsëg ba doo ko tal mhm. xam nga ñu ngi koy def. du ñëpp ngay liggéey. maa ngi lay wax après ci karaafilu lu doy waar loo xam ni. nee naa la jàmm buy sant yàlla day li ko yàlla di jox da ciy jël di joxewaat mm-hmm. waaw ndax nag sama tukki gi rax na <laughs> alhamdulilah waaw rax na lool seetaalam mm-hmm. yàlla maka rayloo ka dee ca Italie mm-hmm. est-ce xam na ni dana ka rayloo ka nera dee ci Sénégal bu dee bàyyiwut loolu moom waaw xam nga yàlla rus waajur rek <laughs> yàlla mhm. moo rus waajur rek waaye xam nga ni waajur mhm. wuy liggéey njabootam lu doy waar la waajur wuy gënale njabootam lu doy waar la léeg nag am na fu nu war a gënale njaboot mhm. waaye ci ban anam la mooy ki déglu kiy déglu waajuram ak ki dégluwul waajuram <laughs> ki bàyyi xel waajuram ak ki bàyyiwul xel waajuram mhm. waaye lu la doom mën a def mhm. liggéey mhm. mooy dernier ak lu mën a xew certain la ku ne ak ni la yàlla bindee nag manto yu bare na waaye bokkut am na yëre yoo xam ne safara du ko lakk essence du ko lakk nit ñi xamunu loolu nag ku ko ku ko weddi na laaj ki Seex Seydil Haaji Malick joxoon Fatiha. Mhm. mu yaakaar ne Fatiha jeeg Fatihaam jeeyam. ndax na boppam Fatiha yëpp Fatiha la. waaye dafa am bu wow koŋ. Mhm. <laughs> am bu nooy népp mhm. am boo xam ni say faatiyay bopp la waaw <laughs> ndax yàlla day joxe ndigal ci lu nit mën a yor nag am na lum la cay may am na koo xam ne bu la jàngalee bismillah rahmaani rahim rek fu mu ëf day sedd am koo xam ne bu ëfee day gën tàng do bismillahi jane mm-hmm. <laughs> lu waaw ka koy jàngal wala mm-hmm. kan koy jàngal waaye du bismillahi ja waaw ka koy jàngal walla kan koy jàngal benn kooku noonu na defaruwaat yaramam mm-hmm. te bàyyiwaat leen ak yàlla ndax la mu doon aaru bokk ci boolewu ci woon sëriñ ba dafa war a dee mhm. waaye deega dafa ñëw karay nag moo nga fa lay ma fa lay <laughs> ma waaw gis nga boo bëggee yàlla di la jox àtteel la ni gën mhm. léeg-léeg del del xippi sa bët rek di seetaan xam nga li gën a garaaw mhm. xam ni ñu ngi def ci yow <laughs> nga fexe ba aar sa bopp leneen li nga nga jël dossier jox ko borom bi léeg-léeg nit feebar ni woo leen ma diw ay buñ ko woowut ay buñ ko woowee it yàlla na ñëw ay bu ñëwee it yàlla na jéggale ndeysaan sa mm-hmm. taala mm-hmm. yàlla ji moo doy waar man li ma koy dénk mooy mm-hmm. <laughs> li mu sukkandiku woon ba dégg faatu gi yàlla won ko ko xamal ko bu mu ci dindi paa lu dul aar boppam nag ndax yàllaa ko santaane waaye na jàppani yàlla fay na ko te ñam ko doon jëflanteel bu ndee ay nit lanu daanu delluwaat gannaaw man de taala lu may dugg ba digg ci deema arrière waaw dëgg dëgg neex yàlla na ah man man mii dina wax ak yow sëriñ laa de waaye lu may xaatim ba digg ci deemam mm-hmm. ma tegaat sama xalime ta xam ne foofu baaxul foofu baaxul ah, ah. <laughs> kese ci àdduna man loolu laa koy dénk bu ko ci dara metti nag mm-hmm. Mm-hmm. xëy na la mu doon joxe bu ko joxewul woon déegi du am ndax fu nu yàqe nit jàppul yàq nañ fa nit mu jàpp na de waaw waaye du tabax yépp la bill di daaneel ku ko nar a daaneel daanu ah. baa bill ba mécanicien ba ne fa ba dale ba weesu te bu ko bawut dat bi dana fekk keneen <laughs> programme yàlla du fausé moo tax lu waay di def olof da koy wax nag te duñ ko déglu lu waaye di def te bañ dee fekk la ci mm-hmm. xool ko ba xam mm-hmm. rey nit mm. ci xaatim ah xam-xam boobu am na de waaye nag ay lu nu koy dooy ñun hmm. ñun jaami yàlla yi nu xol yi nun nunu mel lu nu koy dooy ah déedéet loolu ëpp na man li ma koy digal daa seetaan la hmm. fi mu teg tànkam na gën aar boppam rek hmm. bu mu rey kenn nag ndax bu reyee dootul am dëgg bu mu rey kenn waaye mën na aaro ba dara du ko jege loolu laa koy dénk mhm. te buñ ci déggantee naa ko wax sax lu gën a doy waar lu kenn mënul wax ci kaw macha allah ci gàttal di ci des mu jël dossier ba jox yàlla suñu mhm. borom rek kese jeex na tàkk wallaay ndeysaan jërëjëf Cheikh Moustapha ci leeral bi ndokk yàlla bi nga xamante ni wax dëgg yàlla ci njaboot gi la bokk macha allah bi mhm. moom it noo ngi koy ñaanal yàlla na yàlla gën ko sàmm yàlla gën ko aar ba wax dëgg yàlla mboolem ay bëggam tam sama borom yëgale ko ko ak sago ak mboolem ñi mel ni moom ak ñi nekk ndoog moom yëpp wax dëgg yàlla bokk na ci tudd nga léegi bala maa dugg ci yi ci des moom ndam boobu ñu nga indil ñu ci tey muy boobu nga xam ne ñaa ngi koy wax ndax gannaaw waxtaane woon nañ seex mm-hmm. seexam laay wax waaw wala wala wala wala magam wala mm-hmm. rakkam waaw nu ma ko nuñ ko mën a déggee daal mm-hmm. muy say fiyu waaye tey daal ñu bëgg ñëw ci <laughs> waaw ci moom jàmbaar jooju noonu waaw seex taal karaafilu damay lim yi muy def karafilu mën na tax ba ku la tiire bal du dugg du dugg karafilu karafilu mën na tax ba nga gis sayyiduna Muhammad alayhi salaatu wasalaam deru kàkkatar nga koy booleel moom karafilu mm-hmm. karafilu mën na tax sëriñ bi ba nga takk ko def ko téere takk ko sa ndigg njaboot yaa naan doy na mm-hmm. <laughs> yaa naan doy na mm-hmm. waaye nee naa la lay may njaboot di ko kartan di ko kii danga koy am moom karafilu karafilu goo jël boole kook sóoratul mulki lu mu manut amut da nga gudda fan da mucc da mos moom karafilu mm-hmm. karafilu laa lay wax de lay ndeysaan karafilu boo koy jël di ko bind njege naa yoo koog deru kàkkatar man Moustapha Dieye maa la ko wax danga gis Seydunaa Muhammad <laughs> maa la ko wax <laughs> bind bi ajowul lim maa ngi déglu it ku ko weddi mm-hmm. <laughs> leer lu ma daan wax nag mosuma ci boole loolu. ay li may wax dama ko xam. am na fu mu tege. non waaw taala. Mm-hmm. kàkkatar ni muy mel. Mm-hmm. ci melokaan wu ne. Mm-hmm. kan moo ko xam lu ci yàlla nam. moom mi ko def rek. ku ci mën génnee yonent bi hmm. njariñu kàkkatar ba nu ci waxoon lépp ni nu kàkkatar moom xanaa dafa bokk ci lenn yàlla mm-hmm. te yàllaa ko bind wallaay ndeysaan man maa la ko wax mm-hmm. ku bind karafilu boole koog deru kàkkatar ko mm-hmm. da nga gis yonent bi <laughs> mulk doo ñàkk sutur dana yegg fu ne da nga bare njaboot. te kenn du la yërëm moom karafil ku jël karafilu boole kook deru gaynde. jaasi du la dokk paaka du la laal li gaañee koy kii ay milliards. ay millions mu jaral leen lu ne ah man ma koy joxe. nee naa la gratuitement képp ku nu teral da ngay teralaate. te dañ laa teral barki dem mooy. billaahi sama liggéey ndey. Mm-hmm. sama barke baay. wallaay ndeysaan. Mm-hmm. moo tax ñi ñaanal samay waajur yi mhm. seen fay ndeysaan yal yàlla fay allahumma waaw <laughs> Seex Taala dama ñam ci karafilu nag mhm. des na fukki ponk juróom ñaar yu ma war a wax te yow ma fa naa la wax benn tur bu doy waar mhm. bu ànd ak ay doomam tey boo xam ni ci lépp lay dox lépp nag lépp ci lay dox lépp ci lépp lay dox tur wi daal mi ngi tàmbalee kayifa kayifa laalaguma sa jama ji nag ba yegg ci ki <laughs> ay bismillah laay laay laay ah. waaw kayifa ji kayifa ji rek muy lu doy waar hmm. ay boo ko booleeg tabat yadda hmm. ay boo ko boolee Mm-hmm. ay boo ci xëppee xorom hmm. <laughs> billaahi nit dana dem ba ci xorondom taxaw fanaan lu ma def laa ilaaha waaw ku la mas a def mm-hmm. dana ko wax <laughs> ah, ah moo tax nag dafa ma def goo xam ni toog xam ni nit ñépp a xam nanu li sëriñ Moustapha xam moo gën a néew may wax wax ju rëy ju toll nii taw ma fu ma ko teg mm-hmm. hmm. ay nag waaja nee na damay junj ma ni ko junj ma damay ñamalaate damay ñamalaate bu mu jaawale junj ak ñamalaate bokkul de waaw kay waay lay tarkal <laughs> ñoo xam ne bu nu reggee dañuy fàtte julli te raay ak biira leen ko yóbbi moo tax gaa ñi dee leen ñamal rek <laughs> <laughs> waaw kay tubarkal waaw macha allah Cheikh ah. Moustapha ah. loolu doy na waar gis nga tur wii nuy wax kay fa sa jamakin mhm. am na juróom-ñaari doom ci gàtt waaw ah, moom laa ci génnee rek ci gàtt gis nga juróom-ñaari doom yooyu bu ci ne ak ci li muy dox ci li muy dégaase ca la muy def nee naa la foo ko yóbbu rek day dem foo ko yóbbu nag day dem foo ko mën yóbbu nag day dem boo ko dugalee ci yaasin mu liggéey fa lu doy waar nga yóbbu <laughs> faate mu liggéey fa lu doy waar nga yóbbu ci tabat yaddaa mu liggéey lu doy waar nga nga yóbbu ci alam tar mu liggéey lu doy waar nga yóbbu ci alam nasa mu liggéey lu doy waar nanu gaañi di topp rek waaw macha allah boo yoree ay valis hmm. maye saag ak pochette wàññiwul la dara lay du la wàññi dara ok <laughs> fi ne daal kon fi ne su ma déggee fi ne bu baax a baax kon Cheikh Moustapha moom fi mu toll nii moom sans limite gi moom fi mu ne moom taxawaayu sans limite gi daal maa ngi ci noom maa ngi ci <laughs> man maa ngi ci <laughs> yàlla xam na ni maa ngi ci lay day sànni yàlla xam na ko lay waaw lii de firndeel na ko moom wax ah non maa ngi ci mm-hmm. <laughs> ponkal yaa ngi may déglu te li may wax ndawut lii ma lay wax nii tur wi ndawut mm-hmm. waaw na koo xam ni bi ma koy wax nee na bëri defaraat toogaayam ndax xam na ko nag waaye xalaatu ko mm-hmm. mm-hmm. macha allah jërëjëf ci secret boobu. waaye ci côté yi bu àndal. ndax ne nga juróom-ñaari doom yoo xam ne benn bu ci ne. ak ca la muy dox. ak ca la muy dox. kon sans limite yi nga wax ne fii mu ne jox nañ la garaatu sans limite gi moom. bokk na ci lii da koy firndeel ndax. boobaak léegi ñaar yi nga indi moom daanaka tuwaat kàllata. waaw lépp itam ci biir ci biir ci biir kay fi rek. Mhm. waaw nga xam ne waaw waaw xam nga Seex Taala. xam rek ko wér. Mhm. xam-xam rek ko wóor. moo tax. ku la ko jox mhm. na nga ko xam mhm. man léeg-léeg nit day ñëw di dof dof lu samay kaw de ak di gëmmentu gëmmentu la ma nelaw nelaw ci kaw <laughs> ndax xam lu tax sëriñ bi mhm. ki ñëw pour ñëw ngir yàlla tax ak ñëw di la wax lu mu gëmut <laughs> bokkul de non la mu fay indi du tax genre yooyu nag léeg ñooy toog sax ci internet bi <laughs> waaw naan sëñ bi day làmbaatu waaye <laughs> yow mi xam luy làmbaatu mhm. yow la war a xool fooy làmbaatu fooy làmbaatu ak lan ngay làmbaatu na lay problème mooy da nga doon làmbaatu te dajoo te ndax li nga doon yër si déedéet doo ko gisee noonu ndax man dama xam seytaane nag mhm. dama ko xàmmee bu baax xam koo xam ni gëmul dara waxoon naa la fii keroog ku la tiim ak yow di wax pareegul jël loxo bi yóbbu ci doq gi billaahi lu mu la wax boo ko gëmee yaa nga ca air ba te yëgoo sa bopp ku dul wax dëgg balaa muy pare loxo bi ci doq gi loolu firnde la. non mais sëñ bi loolu noonu dund naa ko fii léegi ci biir kër gi léegi léegi léegi léegi léegi nii. <laughs> ah naa la ko de. <laughs> la li lii ma la wax ñaari signe la. doq gi baa bopp bi rek. ngay wax ak nit mu jël loxo ba bopp waa baax na dégg naa la. du ko def. mu sonal sa bopp. Oh. sëñ bi nit di la jaxaseeg nit di làmb doq gi wóor na yàlla boo coow ak sa njaboot rek musiba dal la waxul dëgg maa loolu si. laa ilaaha illallaah. ah ak di wax dara pare goo jël sa loxo di laal sa sikkim. la ngay wax leeru la da nga bëgg nettali kese. ay la ngay wax leeru la. <laughs> non maa ngi teg loxo si sikkim bi di ko wàccee waat déedéet waxuma yow na nettalee ko dara. non mais sëñ bi li ngay wax dafa doy waat te lii man ak moom dañ ko dund. léegi léegi léegi. non lii matul xam nga xam lépp sax. dafa doy waar. waaye gis nga sëriñ bi. li nit ñi war a teeye ba dunu am éeréel ci nit ñi. Mhm. yàlla xam na ni dañ ko waroon topp te dañ ko ba. Oh. maa la ko wax fii nag. <laughs> na ko gars yi rek topp ko. daanoo ko am. Ah. yal na yàlla dolli sutura. waaw loolay xam-xam nag. waaw oh, ah, lu leer ngay wax. waaw ah, loolay xam-xam mm-hmm. nag. lu leer ngay wax. nga di wax nit lu mu la gën a xam. nga pare mu ni oh yàq nga sa wax. <laughs> fi nga laal baaxut. loxo bi ci doq gi. Mm-hmm. ah te xoolal li ma lay wax. Mm-hmm. ñinu la wax ni seytaani international la. waaw <laughs> fu ñuy tase kër. seen loxo yaa ngi ci doq gi. bët yi di weer waaw suuf. ak nit di wax pareegul di gestu boo ko gëmee yàqu nga waxul dëgg <laughs> ah. <laughs> waaw waaye bopp raw na yur gaa ngay mëyi mëyi waaye ci boppam la wax rekk di wokk ni pareegul eh. <laughs> terul ko <laughs> non man li ma a ma ko wax nii man damaa mm-hmm. ah, la <laughs> da mm-hmm. da kon da ngay dem nii mm-hmm. man fii laa dëkk jóg romb ko dugg waaw <laughs> maa la ko wax nag ndeysaan jërëjëf Dieye yal na yàlla fay yal na yàlla fay mm-hmm. macha allah rabbi waaw mm-hmm. la ndax mm-hmm. loo xam ne sax lu ñu uti a jël waaye da nga koo wax ñu teg ci suñuy bët waaw du du du toog a tax ñu koy wax ndax nag ma shahid naa illaa ma alim a ma lu tax loo xam ne damay ànd ak moom ci sama biir bàmmeel waaye dama ko dund fii léegi léegi léegi léegi billaahi lazi laa ilaaha illaa yal na yàlla xeeb dolli amiin bokk na ci question yi fi ñu ko bëgg a tàmbalewaatee mooy mbokk internet yi Mm-hmm. ñoo ñoom ñoo sabablu ci yow. Mm-hmm. ne li ngay wax ci ay sarax ak i ñaan ak ni ngay décortiquer. Mm-hmm. dégg déggaguñ ko fenn. ba tax kenn ku ci ne yónnee ay bagaasam ne nañ ko ci laajal. fi may tàmbalee. kii moom dafay laaj bagage yu golo ak bagage yu bukki. nee na lan nga ci lan nga ci mën a leeral. ndax ñi koy waxtaanee ñëpp dañoo bëri. bagage yu golo. golo mën na maye mbooloo. am na looy am ci golo ku lay liggéey du la gaaw jàpp. golo dana neexal kër <laughs> waaw golo mën na yàq waaye du yàq fu dara nekkul golo mën na neexal kër <laughs> juróom ñaari xampitu golo boo ko amee ci ñam wu mu doon lekk doo am benn jàngoroy biir te doo ci lekk de benn jàngoroy biir doo ko am juróom-ñaari xampitu golo. maanaam mu yoroon màngu di ko xampit moom nga juróom-ñaari yoon rek. nga baal ma ba nga juddoo ba léegi gisagoo juróom-ñaari golo yu feebar de c'est que naa gis bu feebar sax. <laughs> nga baal ma nag. wallaay gisaguma ko jéeg. ah gisoo ko fenn xam gis nga xaj ba feebar. Mm-hmm. mbaam mu feebar fas fu dee. lu ne gis nga ko. Mm-hmm. nanu bàyyi xel nag li may wax. Mm-hmm. <laughs> ndax yaa may laaj. Ah, te ku ma laajit naa la wax. <laughs> yàlla. golo. Mm-hmm. beneen affaire la moom golo. Mm-hmm. <laughs> waaw te lii ma la ci wax moo ci gën a néew. Mm-hmm. bopp golo fu nu ko suul. Mm. jigéen du fa jàmbat ni aw ma njaboot. déedéet. am na yeneen yu muy dox nag waaye noonu la amee it beneen sens bi contraire waaw ndax golo dafa am ay façon mm-hmm. am ay marque nag golo am na ba Timberline nag <laughs> am na <laughs> na ay golo <laughs> ah golo dafa am ay façon nag mun ko jaawale benn nii noonu waaw ah, am na nag mm-hmm. Mm-hmm. ak golo ci période bu ne tey boo doon soxla golo wala nopp si jaboot bu nekk ak boo ko soxlaa fi nga ko war a fekk. ngir soxla ba tax waaw am na ci lu muy dox. am na noo koy fekk mu positionné wu. Mhm. li nga bëgg danga koy am automatiquement. <laughs> ndax buy daaw rek fa mu ko fa mu jógee da fay tibba loola. Mhm. wallaay yàlla xam na. lay am loo dem jàng ci wasaafaati. Mhm. Hmm. <laughs> am loo jëm jàngi ci wa naj wa naj hmm. lu doy waar <laughs> lu doy waar laa lay wax mm-hmm. <laughs> ah golo bare na seetaala am na luy ne ci golo bu ko jigéen amee ëmbam kenn mënu ko téye kenn mënu ko yàq du rab du nit ku bon du leneen golo ci golo <laughs> te leen la as la rek ci gone waaw as rek loo xam ne bagage golo yëpp garaaw waaw mhm. geenu golo nag moom hmm? koo ko bàcc hmm. <laughs> dana la wax lu mu mës a def ci lu ñaaw hmm. mook bantu keleyam mhm. génn golo ah, golo ci boppam kon mook bantu ah. doole bi bantu kele di waaw mhm. waaw moo tax waaw ah, mook nag bu am ñetti couleur yam am na tànki avant derrière <laughs> am nay bagaas yoo ci mën a jële yu doy waaye ci golo la ñu wax mhm. bukki nag hmm. bare nay bagage torop siiñ wa mhm. tuñ wa mhm. ndodda la <laughs> ak yeneen sax lu doy waar la moom bukki waaye nag du ñëpp ko war a utilise de hmm? déedéet am na kuy utilise bukki mhm. wér dana ko jafe baadu waaw àttanul too bi te du ay bagaasam moomu ko mhm. lu ne daa ku ko moom mhm. moo waral ñun du ñu ñaanal nit saanu gëstu gëstu ko du da ngay wax rek ñëw ni lii laa bëgg rek non non non def ko déedéet waaw docteur warul bind ordonnance te xamul jàngoor. Mm-hmm. waaw ah bu doon ñëpp a kay. am na ku mën a yanu cinquante kilos. am na koo xam ni cinq kilos sax boo ko joxee mu dar dareeg moom. Mm ci bukki nag bayre bu nekk ngi ci. Mm-hmm. waaye yemul ci bayre bukki dawul kese ci bayre am na fooy toll nga boole till boole bukki boole céeli nga boole ñett yooyu laa wax de bu ci ne nga am dara ci moom boole ko hmm? Hmm. lépp fépp fu nit di dem di tiit baa nga leen gis di tiit wallaahi doo ko gis sàcc du dugg sa kër ba ba ngay sàngoo suuf di yor aw xetal du am hmm. <laughs> homme de tenue du la toroxal mukk ci sag dund ñaar ñetteel bi ci tegu boo dëkkoon ak seytaani piir koo xam ni fu mu dëkk tas na ko tasar ba mm-hmm. yegsi ci yow mm-hmm. day buubaat bagaasam génn mm-hmm. aw am na nag ab maccaat maccaat mi nag dafa neexula wax ci kaw ci xam-xam la tegu nag moo tax li nga laaj nii lu doy waar la mhm. te nee naa la bukki tuuti laa la ci ñamal même golo yit tuuti laa la ci ñamal mhm. waaw sens contraire yi moom xuusoo ci danga koo junj waaw waaw te nanga nga fexe it ba gis golo guy sëqat am na looy jëli ci golo sa njaboot kenn du asma kenn asma bi nga xam ne moo lëmbe réew mi yàlla xam na ko kenn du asma kenn ci gàttal. <laughs> Ah. macha allah. yàlla xam na. tubarkàlla kon daal mm-hmm. golo bukki daal a ngi noonu ñoom daal seen i bagage daal fi mu ne. Mm-hmm. moo tax ñi ngi leen di sant ñoom ñu mm-hmm. ni teewlu te dinu laaj ci xam-xam. ndeysaan. macha allah rabbi yàlla na yàlla xeb doolu te gën a dëgëral seen taxawaay bokk na ci beneen question bi tam kii moom it loolu la laaj dañu bëggoon na tam nga waxtaan ci paftan ndax bu ñu xoolee paftan dafa am ay ren ami xob waaye ami doom kon sànniwuñ dara ci paftan waaw <laughs> nee lan nga ñu mën a indil tey ndax wax dëgg bëgg nañu xam paftan nga jël ko bind 313 falax 313 naas 313 tabat yadda boo ko doon sangoo ci kër da nga naan bu kenn génn bu kenn génn hmm? bu dee bëgg nga jàmmaam hmm. benn mm-hmm. ci garaawam laa lay wax mm-hmm. benn paftan nga bàyyi ba guddi jot nga tawat tawat gu yàgg mu taw a nga jël reenu paftan wàqi gas ko ba dagga reen ba mm-hmm. jël ko def ko ndombo waaye bu la kenn gis jamono ja nga koy def nag doo sol boo koy gas boo koy dagg ak yépp doo sol waaye ku la gis baaxut gënut moo tax yooyu duñ ko bëgg sax di digle boo ko defee ndomb bu dee liggéey la jàpp bu dee rabal la tëral bu dee dafa am foo doon liggéey nu am lu la sànni boo ko defee ndomb dalay ba ndomb dalay ba waaye nag liggéey bi day génn te day dellu moom paftan juróom ñaari paftan wala ñetti paftan juróom-ñaari fàllaxi benn feuille juróom-ñaari naasi benn feuille juróom-ñaari lixlaas ci benn feuille <laughs> nga def ko nga boole ko juróom-ñaari bismillah rahmaani tëfli nga sangu bu dee liggéey def def la day raxasu moom paftan ak yeneen yu doy waar pourtant day xëcc wërsëg moom <laughs> kon moom ni muy ni muy aaree fi mu ci ëpp. waaw wow waaw wow day xëcc wërsëg sooy bañ sa alal yàqu am na noo koy def. <laughs> waaw. <laughs> Ah, am na de ah. Mm-hmm. lan bu la nit menacé woon. Mm-hmm. nga jël ay kawas. am nooy sole paftan ci say kii. Mm. dana la woon ni la sawaay foo nekk fekk si ma fii ma ne de am na lu xew cool cool na. ci gàttal <laughs> moom paftan doom ya la boobaa doom ya lay doon waa waaye yow sol ko rek ba dégg rek paftan bi naan pof du yàgg dara <laughs> information bi ñëw wàcc ah léeg-léeg nag di yow bare da nga koy bëgg di wax sax waaye saay-saay gi saay-saay dañoo bëri <laughs> ah, à suivre ku ci bëgg a xam li ci topp moom daal di dalay woo rek fi ngeen daal di ci waxtaan xam na loolu yëfi biir la waaw lépp mënuñu ko wax ci kaw tamit waaw xam nga téléphone dana mm-hmm. am décoté waaye charge bi nag loolu it affaire la tubaarkaal tubaarkaal tubarka waaw <laughs> lo chargeur yëpp ngay chargé tubarka walaay du chargeur yëpp ngay chargé téléphone walaay ndeysaan mi ngi noonu tubarka <laughs> jërëjëf Dieye ci ci ci ci leeral boobu wax dëgg yàlla mbokk yi kon xam naa ne ñoom it fañ toog seen lool buñ jàkkaarloog seen télé bi nga xam ne mooy Amsa TV la télé solution hmm. kon solution yi ngeen di soxla saa su ne mi ngi nii hmm. bokk na ci kiitam nee na dafa dafay dégg saraxu goro ak tàndarma lu bare bare bare bu bëggoon xam ndax sarax la rek wala dañ koy def pour càngat la wala hmm. pour lan lay aar dimbalee doomu aadama bi dafa baax baax lool te baax te amul lu ko gën a baax ci sarax sëy bu nit di takk fekk dafa ci guro da yaakaar saful dara kuy jéggalu guro ngay wut baa tàndar mu bari sekkare nag xanaa xamoo guro gu weex nga jël benn guro bu weex allahu latif bi xibaat ya sox ma ne sa waxil xasis mhm. <laughs> ba muy 66 nga def ko ci ndox sangoo ko xam nga man gura rek lan ma doon laaj gis nga loolu day fekk lu boloke ba di kekk na xeer mu deb mu débloqué ko boo ci tegee cent vingt neuf yàlla tiifu nag kenn waxatu ko moom allahu latif ba badi benn guro ba mat soixante six nga teg sa bouteille dii liitaru ndox <laughs> bu la neexee sax xëpp ci tuuti suukar maa ko maye wàññiwul dara waaw <laughs> ah, maa ko maye wàññiwul dara <laughs> ah, ah, waaw waaw waaw waaw tubarkàlla waaw dèjà waaw ah mi ngi noonu moom guro mhm. tàndarma nag dafa barkeel ngir jëmmi yentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam tàndarma lu ne la tàndarma waxuma sax jël ko saraxe waaye tàndarma li faj kenn xamu ko mhm. waaw benn doomu tàndarma mën nga ci génnee fukki ak juróom ci benn doomu doomu tàndarma. benn doomu tàndarma mën nga ci génnee fukki feebar ak juróom-ñaar. ci feebaru góor ak feebaru jigéen. Mm-hmm. waaw góor guy tuur ndox mu yeex. tàndarma mën na ci dara pour cent. Hmm? waaw <laughs> bu baax sax. waaw sëñ bi leeral loolu di tuur ndox odooru ndox mi tuur ndox gi am xet torom. Mhm. tàndarma mën na ci dara pourtant <laughs> waaw. am mën na ci dara bu baax sax nag bu baax baax sax nag <laughs> waaw moo tax ma ni la <laughs> amul problème nit ñi. nanu xam ne xam-xam li ci yàlla def bu ëppul géej toll na ne géej yàlla xam na ko mhm. waaw nu bàyyi xel loolu rek nag mhm. ah moo tax tubaarkaal tubaarkaal ah, ah, amul benn jafe-jafe bu ci am mhm. <laughs> waaw amul na wax li fi nekk yàlla nu ko jagleer rek waaw waaye tàndarma nee naa la sarax gënu ko barkeel ci xam ko nag waxaguma la lim ya de hmm. waxaguma la chiffre ya de hmm. waxuma la sax heure ya nag hmm. daal barkeel na lool ci ay sarax moom ah loolu dëgg la am na heure booy dem boo demee banque ba doo doo fayiku wala doo jël la nga soxla am na heure yoo xam ni boo fa demee dangay xam ni ala kulli xaal da nga fay fekk la nga bëgg loolu lépp nag temps weer wi am na waxtu jant bi am na waxtu biddiw yi am na waxtu lépp am na waxtu macha moo tax léeg nit du loo gis rek jël ko hmm. nit ñaa ngi koy def nag loo gis rek wird hmm. Hmm. bu yàggee nu wird dal la ah alaakulli waaw ba wird loo xamul def non non waaw ndax xamul dañuy mélanger rek baax na baax na nit day wird di tiit nit di wird di nangam moo war a léeg-léeg ma naan nanu wàññi baanu bàyyi ndax xam naa li may wax parce que daf ci am wird moom defe naa ne lu ci waay di def ak yu ni mel moom da ko war def ci ndigal ah non dafa am solo sax sëriñ bi. Mhm. Mhm. ndax gis naa yu ni jaay di ko foye barke démb maa ngi ànd ak sëfoor bi. Mhm. am ku ma wax rabbana mu ni ma téere bi rabbana yi ci alxuraan yépp mi ngi ci. ñaata la mu ni ma quarante. ah <laughs> mu ni ma déedéet téere bii ma yor laa ni quarante ci nekk. <laughs> kon kay yëpp newu ca. <laughs> xam nga. tubaarkàlla waaye da koy comprendre. ci loolu waaye yooyu garaawul. waaye li garaaw mooy ismul jalaal mhm. nga jël ko xamoo lu mu jariñ nga koy wirda war ko defal sarax baa nga koy wirda amoo ci ndigal mu lay dof loo <laughs> mu lay def loo ndax xamoo yoon wi moo tax dafa am solo mhm. tubaarkàlla te bëri na ci dof yu bëri léegi tey jii daal am na solo bëri ah. na ci dof yu bëri loo xam ne fi ne tey jii xale la ngi dof xale yaa ngi dof sax yor kurus xale yaa ngi dof xale yi ci jàng ci école yi ñu ngi dof mhm. xam nañu loolu ñu ngi dof fekkate yoo dañ leen régulariser wu rek mhm. réglé bi nu war a am nu jaar fi nu war a jaar amut mhm. waaw waaw ndax bu dee loo gis jël koy da nga jël lu la jël daa am nu werante moo tax yàlla nañu yàlla musal ci loolu rek tubaarkaal jullit mm-hmm. mm-hmm. leeral boobu kon bokk moom itam xam naa ni xool ba sedd na ndax moo doon laaj maanaam tàndarma guro kon liñ ci mm-hmm. indi moom dégg nga ko xam naa danañ profité ci biir koor gi jotaay yu am moom a yaatu it moom li muy laaj moo gën a xam naa ni moom nee day bañ ñu ree ko sax ndax maanaam laaj la laaj laaj bi ñuy togg nii nee na moom laaj daal la bëggoon euh, dafa ne laaj bi ñuy togg la bëggoon xam ay bagaasam waaw laaj li gën def war na sax laaj lu tax ni koy takkalob xale ñaar daf noo jege te nu doy waar muy muy lori mm-hmm. muy laaj mm-hmm. ak persi sax persi seextaa la wàllu laaj dafa bari laaj seytaani ñemewu ko te du caaxaaneek moom laaj dana leeral xel laaj ngelaw dana la dugg nga ànd ak laaj ba ngelaw li bala ngelaw seytaan di xooj laaj di ko naan baax na mhm. di xooj di ko sangoo baax na di jël laaj di ko ngànnaayoo baax na moom laaj. Mhm. ndegam yaa ngi koy def sa fit du. tëf tëf ci gàttal. am na sax fooy def laaj tey ànd ak moom doo am problème mu régal guy tardé baa guy bloqué ci gàttal. daay daay laaj na lu mu de. Mhm. waaw ah, bu dee góor a ko laaj mayaale nañ ci jigéen ñi. waaw waaw dimbali moom loolu tax ma ne laaj na lu mu xamul. ndax dimbali na jigéen ñu bari fi mu toll nii bi. Mm-hmm. Ah, fi mu ne jigéen ñëpp boo koo ci dégg mi ngi wax ni sama régal bi daa tari gisuma mm-hmm. sama nangam ak def nangam ak nangam fi mu nekkoon. Mm-hmm. te nekk te secret bu gaaw a ngi nii boo xam ne juróomi dërëm nga dugg ci boutique bi. ndax régal gu kale ñett rek ko koy def. cat dana ko def. def def dana ko def. rab dana ko def. ci gën a bon nag. def-def la ak mbirum seytaane nit daanu ko def loo xam ne regal gi du arrêté xanaa xamoo am na ñoo xam ni seen jëkkër yi ñu ngi ci àll bi waaye heure bu nu ñëwee tukki dañuy gis régal ba balaa muy dem loolu xam-xam bu ñuul moo koy def kon def def la loola bu mag sax <laughs> oh. waaw ndax régal gu boloke nit ñi doon koy xeeb mm-hmm. te baaxul ci ñaar régal gu bloqué dana tax nga teel a am problème mu tànk waaye dana teel a tax nga am problème yi bët kon bu la dalee rek wut ci saafara ci solution moo tax tubaarkaal tubaarkaal macha allah mm-hmm. jërëjëf kon moom laaj mi ngi noonu juróomi dërëm lay jar yomb lool ndakati nii la mën a dimbale doomu ak ndigg metti sax nag tubaarkaal ndigg mel ni mii nii waaw wow régal gu bloqué da koy def ok bu baax sax waaw bu baax sax tubaarkaal macha allah mm-hmm. jërëjëf Cheikh Moustapha ci leeral boobu tam moom laaj ndeysaan nee naa juróomi dërëm rek ci boutique bi nekkati lii lépp mënal na ko doomu aadama mhm. daal kon daal xam daal moom moom mooy li wér daal mhm. kii moom it dafay laaj ne na saraxu furi mhm. lu mu gën a gaaw njëriñ jëriñal jëriñ doomu aadama bi wala lor ko dafa am ñoo xam ni luy meññ ci kaw mooy seen wërsëgu sarax lu nu saraxe gis ko am ñoo xam ni liy meññ ci suuf mooy seen sarax boo waree laal ci suuf jël si kaw doo dem boo waree jël si kaw di laal ci suuf doo dem mi ngi mel ni ki nga xam ni wërsëgam du oto du weñ mm-hmm. na yor téeméeri oto <laughs> yépp day gaare na yor téeméeri moto yépp day gaare ndax du wërsëgam mm-hmm. am koo xam ni wërsëgu suuf la bëgg a def wërsëgam du wërsëgam téere bu mu jënd day am problème xam nga njaay eh, am ndaa toj ndaa taxuli ami ndaa ba ba bare ndaa loolu day am moo tax nit day gëstu xam lan la war a jël nit a ngi ubbi société def ci moyen fekk du wërsëgam mooy moom du moom moo ko war a ubbi waaye bu bokkee keneen day doxle <laughs> ah yooyu dafay am moo tax saraxu fir wi baax na waaye du yépp waaw am na yu jeytaam waaw nag baax na. Mm. waaye dafa am ku nekk ak sa sarax. sa sarax. Mm. tubarkaal ngi mel ni ndox mu sedd ak ndox mu seddul rek. Mm-hmm. ah am am na de. waaw ci seen sarax. Mm-hmm. waaye ko daal. Mm-hmm. benn. waaw ah, tubarkaal. <laughs> Ah, wallaay ndox mu sedd ak mu seddul xanaa xamoo soow mu weex boo koy saraxee doo gis dara. te pourtant saraxu soow sarax gënu ko. Hmm. waaw. doo gis dara am na fu soow mu weex di dox ci sarax bu <laughs> am na loo doon soxla ci sarax waral soow mu weex ba am ko mhm. kon mu weex ah. ah. ngay wax sax mu lewet mi sarax la waaye mu weex mi it sarax la <laughs> waaw xale dana tàng ba nu yëg ni tàng na mhm. am looy def ci soow rek jàpp ko rekk am foo koy laaleele rek moom mel ni ku nu xëpp ndox mu sedd. ndeysaan moo tax soow doy waar. moo tax mm-hmm. soow loo ciy def day jàpp. si. moo tax dama ragal nit koo xam ni foo dem naan fa kaasu soow. raw sàmbaraay bu nu jël air rek tabalaak moom ñu tey mënu maa ndax sama añ li ma añ a bëri fi mu toll nii moo tax mënu maa ree taal taal waaye daal xam naa ne fu waaye toog naan kaasub soow moom defe <laughs> la raay waaye nelaw gu métti sax dañ allah mhm. na yàlla defal ñu jàmm macha allah te mucc ñu ci lu bare bare bare am na solo lool Cheikh Moustapha xam naa ne damay tënk foofu laaju sarax yeeg yooyu mhm. bi moom lim li dañu seetlu ci jamono yi mhm. li ñu tàgg ay nit ci internet bi. Mm-hmm. dafa bëri rawatina di tàggee ñoo xam ne deewuñu. Mm-hmm. ñooñu tey jii nga xam ne ñi ngi tàggee nit ñi. ci mm-hmm. internet bi te deewaguñu yan conséquences moo leen ci mën a fekk ak lan nga ñu ci mën a wax tey. waxi yonent bi sallallahu alayhi wasallam du masa dañ seex taal. yonent bi nee na dee leen yéenante jàmm. dee leen waxante jàmm. dee leen yëglante jàmm. def leen ndànk ci ree nit. baa ci yéene nit. lu waay yéene nit mhm. balaa ngay dee dana ñëw sa kaw xanaa loolu leer na waaw tàgge ku deewul mhm. gudda fan la ci ki deewul man su ma sañoon bis bu ne nu tàgge ma mhm. gudda fan la ca kanay tàgge waaye gàtta fan la ca kay tàgge ah leer naam. lii ma lay wax nag bu ma ko déggoon ci anglais ki espagnol ak portugais. noonu laa koy waxe mu leer ci bopp ñépp ni tàgge ko deewul gudda fan la ci ki ngay tàgge waaye gàtta fan la ci yow miy tàgge xam nga nit ñi danoo yaakaar ni yàlla newul ci internet bi yëpp <laughs> toogu fa de ñoom loolu la ñu foog. ndeysaan nit a ngi bind ci internet ba si yàgg xëy rek loxo bi néew ba ni put. Mhm. xam nga lu ko waral. daa bind ci lu mu warul bind. Mhm. ci lu mu waaw wala mu bind ci ku mu warul bind. waaw. <laughs> nit a ngi am coow rek mu taw a jeex. Mhm. dafa dafa wax ku mu warul wax. baa mu xaddi sutura ku mu warul xaddi yàlla bindul jaam yi rekk ba leen yàlla dafa bind jaam yi ba pare aar leen ormal leen sàmm leen te suturaal leen ba mu ni wàccew ma leen fi pour ngeen ni weeraate mu ni wàccew ma leen fi pour lii wàccew ma leen fi pour laa yow nga ni déedéet yàlla loola xanaa boole woo ci internet bi nit kuy dund mhm. nga génn bind rib mhm. rib jooju bindaloo ko sa bopp nga ko bindal nee naa la ka ngay tàgge dana gudd fan mhm. yow may tàgge danga nga gàtt fan ah xanaa loolu leer na ku ko dégg na ko wax ki ko déggul ci wolof ji may wax mu mm-hmm. làkk ko ko ci angale mbaa mm-hmm. ci portugais ba ci ay espagnol loolu kay des na ko bindaale ci biir commentaire bu bi sax nag ci gàttal pour mu xam ko ni rek loolu la technicien yi faaw ñu def ko traduire ko en anglais ak français ak espagnol ak yépp fi mu toll ni ñu xam ne daal loolu lay signifier bu nit am musiba mukk ci àdduna mm-hmm. ba nu yéene ko ko yonent bi salaay sallam def ci ndànk <laughs> nit daan na ree kër gu nu baal ma ci wax ji nu ëmbal jigéen muy ree mhm. bu maytuwul doomam yépp ëmb nit daan na fekk nu dàq kenn ci liggéeyukaay muy ree bu maytuwul njabootam kenn du am liggéey nit dana fekk doomu jaamur di liggéey muy dugg ci sëriñ ba xañ ko liggéey gis nga doomam ya dontu ñu ngi liggéey daanu ñëw fekk foofu ni ko yaay dàq na nu fekkati yoo gàllaaj galaal kele moo laal njabootam gépp te bàyyeegul hmm. nit ñee caaxaan rek a <laughs> ah, olof a ko wax mbaggum euh, deritu nopp du may mbaggu borom moo tax lii ma la wax nag moo ci ne mhm. man daal suma ma sañoon ndax ña fay toog samay soppe ci internet bi mhm. waaye dama leen di ñaan ñoom ñépp na xam naa ni soppe yi jàppuma ni mukk ñoo koy def mhm. waaye damay ñaan ngir yàlla ak yonent bi nanu maytu saaga ci internet mhm. nanu moytu sax di wani yenn cëri ci internet mhm. nanu maytu nanu moytu ndax li may wax waxoon naa ko Cheikh Tall gaa ñaa ngi dee rek de wallaahi hmm. gaa ñi nag bàyyiwun xel loolu gaa ñaa ngi dee rek de waaw moo tax daal tàgg nit moom ak sosal nit non Hmm. bul am jaam bul xalaat ne danga nga am jaam. Hmm. wallaahi doo ko am. Ah mi ngi noonu tubaarkaal tubaarkaal. macha allah ah. jërëjëf Cheikh Moustapha ci leeral boobu itam amati na solo lool macha allah rabbi. Hmm. kii tamit moom dafay laaj nee nit ñi nga xam ne dañoo bëgg bàyyi lu bon. bëgg bàyyi sax seetaan ndax am na ci ñoo xam ne ñoom lu seen bët yi rek lu bon rek la ñuy seetaan. waaw waaye bëgg koo bàyyi. naka la ñuy def ak naka lañ ci mën a mucc. man de maa ngi ci am am pagaay. am na lu ma fi waxtaane woon nit yu dul jeex woo ma mhm. sëriñ bi dañuy foye sunu bopp mhm. sëriñ bi dañuy def lii xam nga ni kooku kon loola neexu ko ba mu jaral ko jël alalam di ko ci def mhm. te naan la dem naa fu ne xam nga ni kon loolu neexu ko seetaan ak lu waay mën a nekk soo ko bëggee bàyyi rek nanu fexe ba jokkoo baa jàkkaarloo man xam naa ne da nga bàyyi ndax yàlla mm-hmm. dimbalee na ma nag loolu waaw dimbalee na ma loolu mm-hmm. moo tax ma ni la duma ma xas kenn mm-hmm. du bàddi kenn man daal ki bëgg a baaxama yitteel te di wut lu ko baaxal ak ku ko baaxal yeneen yi nag amul solo waaye daal nit dana réer bay jëflanteek ay waajuram sax nodul noonu waaye gis nga bu ko leeroon ni am na sansu rek ku ko dimbali. Mhm. wallahi lu bare dana ko fàtte. man di li may jubale ci ay nit xamu nu mu toll. wallaahi macha mhm. moo tax loolu moom du benn problème. sëñ bi man ti daal. Mhm. man nga am bàyyi waaye balaa nga may balaa nga may gis del faral di def sallallahu ala muhammad 313. laa xawla wala quwwata illa billah yaa salaamun 111. nga di ko def rek ba balaa ñuy gisante. incha allah yàlla xam na ni ak lu mën mënti doon da ba. incha allah ak loo mën a nekk nag. Mm-hmm. ndax ku naan bëgg naa ba rek ah, la nga nekk neexul wallaay neexul yàlla xam na ko jërëjëf mm-hmm. jërëjëf Cheikh Moustapha ci leeral boobu kon ñoo mbokk internet yi ñoo ko bokk dégg doon mm-hmm. noonu xanaa fi ñuy jeexale rek mooy tey ji gannaaw bi ñu jóge ci ziar bi jóge ci ñaanu waajur yi dëgg dëgmal li nga xamante ni wax dëgg yàlla mooy shahru ramadan gi tey lan ngay baaxee internet yi ak soppe am di jàmm yi nga xam ne saa su ne ñi ngi suivre li nga xamante ni mooy am Amsa TV la télé solution jërëjëf kon moom laaj mi ngi noonu juróomi dërëm lay jar yomb lool ndakate nii la mën a dimbale doomu ak metti sax nag tubaarkàll ndigg mel ni mii nii waaw wow régal gu bolo ke koy def ok bu baax sax waaw bu baax sax tubaarkàll macha allah mhm. jërëjëf Cheikh Moustapha ci leeral boobu tam moom laaj ndeysaan nee naa juróomi dërëm rek ci boutique bi ndakate lii lépp mënal na ko doomu aadama mhm. moom daal kon daal xam-xam daal moom moom mooy li wér daal macha allah rabbi mhm. kii moom it dafay laaj ne ne saraxu fruit wi ci lu mu gën a gaaw njëriñ jëriñal jëriñ doomu aadama bi wala lor ko dafa am ñoo xam ni luy meññ ci kaw mooy seen wërsëgu sarax lu nu saraxe gis ko am ñoo xam ni liy meññ ci suuf mooy seen sarax boo waree laal ci suuf jël si kaw doo dem boo waree jël si kaw di laal ci suuf doo dem mi ngi mel ni ki nga xam ni wërsëgam du oto du weñ na yor téeméeri oto <laughs> yépp day gaare na yor téeméeri moto yépp day gaare ndax du wërsëgam mm-hmm. am koo xam ni wërsëgu suuf la bëgg a def wërsëgam du wërsëgam téere bu mu jënd day am problème <laughs> xam nga njaay eh, am ndaa toj ndaa taxul ami ndaa ba ba bare ndaa loolu day am moo tax nit day gëstu xam lan la war a jël ñit a ngi ubbi société def ci moyen te fekk du wërsëgam mooy moom du moom moo ko war a ubbi waaye bu bokkee keneen day doxle <laughs> ah yooyu dafay am moo tax saraxu fir wi baax na mhm. waaye du yëpp hmm. waaw am na yu tey taam du yëpp waaw waaye nag baax na hmm. waaye dafa am ku nekk ak sa sarax sa sarax hmm. macha allah mi ngi mel ni ndox mu sedd ndox mu seddul rek. Mm-hmm. ah am am na de. différence ci seen sarax. Mm-hmm. waaye ñun jàppewuñ ko dara. Mm-hmm. du benn. waaw ah, tubaarkaal. <laughs> Ah. wallaay ndox mu sedd ak mu seddul moom. waaw xanaa xamoo soow mu weex boo koy saraxee doo gis dara. te saraxu soow sarax gënu ko. Hmm? doo gis dara. am na fu soow mu weex di dox ci sarax. <laughs> bu am na loo doon soxla ci sànq waral soow mu weex ba am ko. kon soow mu weex tam. ah, ah. ngay wax mu lewet mi sarax la waaye mu weex mi it sarax la. <laughs> waaw xale dana tàng ba nu yëg ni tàng na. Mm-hmm. am looy def ci soow rek. jàpp ko rek am foo koy laale rek mu mel ni ku nu xëpp ndox mu sedd. moo tax soow doy waar. moo tax soow loo ciy def day jàpp. si. moo tax dama ragal nit koo xam ni foo dem naan fa kaasu soow. yaay raw sàmbaraay bu nu jël air rek tabalaak moom tubaarkaal <laughs> ah, ñu ngi noonu tubaarkaal tubaar sëñ Moustapha tey mënu maa ree ndax sama añ li ma añ a bëri fi mu nii moo tax mënu maa taal taal waaye daal xam naa ne fu waaye toog naan kaasub soow moom defe naa ne <laughs> waxuma la raay waaye nelaw gu métti sax dañ ko dëkk ci ngay dëkk wallaay ndeysaan macha allah mhm. yal na yàlla defal ñu jàmm macha allah te mucc ñu ci lu na mhm. moom li li dañu seetlu ci jamono yi mhm. li ñuy tàgg ay nit ci internet bi. Mm-hmm. dafa bëri rawatina di tàggee ñoo xam ne deewuñu. Mm-hmm. ñooñu tey jii nga xam ne ñi ngi tàggee nit ñi. ci internet bi te deewaguñu yan conséquences moo leen ci mën a fekk ak lan nga ñu ci mën a wax tey. waxi yonent bi salaay sallam du masa dañ seex taal. Mm-hmm. yonent bi nee dee leen yéenante jàmm. dee leen waxante jàmm. dee leen yëglante jàmm. def leen ndànk ci ree nit. baa ci yéene nit. lu waay yéene nit balaa ngay dee dana ñëw sa kaw xanaa loolu leer na waaw tàgge ku deewul gudda fan la ci ki deewul man suma sañoon bis bu ne nu tàgge ma mhm. gudda fan la ca kanay tàgge mhm. waaye gàtta fan la ca kay tàgge ah leer naam. lii ma lay wax nag bu ma ko déggoon ci anglais ki espagnol ak portugais. noonu laa koy waxe mu leer ci bopp ñépp ni tàgge ko deewul gudda fan la ci ki ngay tàgge waaye gàtta fan la ci yow miy tàgge xam nga nit ñi danoo yaakaar ni yàlla newul ci internet bi yëpp <laughs> toogu fa de ñoom loolu la ñu foog. ndeysaan nit a ngi bind ci internet ba si yàgg xëy rek loxo bi néew ba ni put. Mhm. xam nga lu ko waral. daa bind ci lu mu warul bind. Mhm. bind ci lu mu warul waaw wala mu bind ci ku mu warul bind. waaw. <laughs> nit a ngi am coow rek mu taw a jeex. Mhm. dafa dafa wax ku mu warul wax. baa mu xaddi sutura ku mu yàlla bindul jaam yi rek ba leen yàlla dafa bind jaam yi ba pare aar leen ormal leen sàmm leen te suturaal leen ba mu ni wàcceew ma leen fi pour ngeen ni weeraate mu ni wàcceew ma leen fi pour lii wàccewuma leen fi pour laa yow nga ni déedéet yàlla loola xanaa boole woo ci internet bi nit kuy dund mm-hmm. na génn bind rib mm. rib jooju bindaloo ko sa bopp nga ko mm-hmm. bindal mm-hmm. nee naa la ka ngay tàgge dana gudda fan yow may tàgge danga gàtt fan ah xanaa loolu leer na ku ko dégg na ko wax ki ko déggul ci wolof ji may wax mu mhm. làkk ko ko ci angale mhm. baa ci portugais ba ci ay espagnol loolu kay des na ko bindaale ci biir commentaire bi sax nag ci gàttal pour mu xam ko ni rek loolu la technicien yi faaw ñu def ko traduire ko en anglais ak français ak yépp fi mu ni ñu xam ne daal loolu lay signifier bu nit am musiba mukk ci àdduna mhm. ba nu yéene ko ko yéen ti salaay sallam def ci ndànk <laughs> nit daan na ree kër gu mu nu baal ma ci wax ji nu ëmbal jigéen muy ree mhm. bu maytuwul doomam yépp ëmb nit daan na fekk nu dàq kenn ci liggéeyukaay muy ree bu maytuwul njabootam kenn du am liggéey nit dana fekk doomu jaamur di liggéey muy dugg ci sëriñ ba xañ ko liggéey gis nga doomam ya dontu ñu ngi liggéey daanu ñëw fekk foofu ni ko yaay dàq na nu fekkati yoo gàllaaj gàllaal kele moo laal njabootam gépp te bàyyeegul hmm. nit ñee caaxaan rek <laughs> ah olof a ko wax mbaggum euh, deritu nopp du may mbaggu borom moo tax lii ma la wax nag moo ci ne mhm. man daal suma ma sañoon ndax ña fay toog samay soppe lanu ci internet bi mhm. waaye dama leen di ñaan ñoom ñépp na xam naa ni soppe yi jàpp ni mukk ñoo koy def mhm. waaye damay ñaan ngir yàlla ak yonent bi nanu maytu saaga ci internet mhm. nanu maytu sax di wani yenn cëri ci internet mhm. nanu moytu nanu moytu ndax li may wax waxoon naa ko Cheikh Tall gaa ñaa ngi dee rek de wallaahi hmm. gaa ñi nag bàyyiwun xel loolu gaa ñaa ngi dee de waaw moo tax daal tàgge nit moom ak sosal nit mhm. non bul am jàmm bul xalaat ni danga am jàmm mhm. wallahi doo ko am ah mi ngi noonu tubaarkaal tubaarkaal macha allah ah. jërëjëf Cheikh Moustapha ci leeral boobu itam amati na solo lool macha allah rabbi mhm. kii moom dafay laaj nee nit ñi nga xam ne dañoo bëgg bàyyi lu bon bëgg a sax seetaan ndax am na ci ñoo xam ne ñoom lu seen bët yi rek lu bon rek la ñuy seetaan waaw waaye bëgg koo bàyyi naka la ñuy def ak naka lañ ci mën a mu mucc man de maa ngi ci am am pagaay mm-hmm. am na lu ma fi waxtaane woon nit yu dul jeex woo ma mm-hmm. sëriñ bi dañuy foye sunu bopp mm-hmm. sëriñ bi dañuy def lii xam nga ni kooku kon loola neexu ko ba mu jaral ko jël alalam di ci def te dem naa fu ne nga ni kon loolu neexu ko seetaan ak lu waay mën a nekk soo ko bëggee bàyyi rek. Hmm. nanu fexe ba jokkoo baa jàkkaarloo. man xam naa ne da nga bàyyi. incha yàlla. Hmm. dimbalee na ma nag loolu. alhamdulilah waaw dimbalee na ma loolu. Hmm. moo tax ma ni la duma ma xas kenn. du ma bàddi kenn. man daal ki bëgg a baax a ma yitteel. te di wut lu ko baaxal. ak ku ko baaxal. yeneen yi nag amul solo. waaye daal nit dana réer mhm. bay jëflanteeg ay waajuram sax nodul noonu si waaye gis nga bu ko leeroon ni am na sansu rek ku ko dimbali mhm. wallahi lu bare dana ko fàtte man di li may jubale ci ay nit xamul mu toll wallaahi <laughs> moo tax loolu moom du benn problème sëñ bi ku ti dal man nga am bàyyi waaye balaa nga may balaa nga may gis del faral di def sallallahu ala muhammadin 313 laa xawla wala quwwata illa billah cent onze cent onze yaa salaamun cent onze mhm. nga di ko def rek ba balaa ñuy gisante incha allah yàlla xam na ni ak lu mënti doon da nga ba ak loo mën a nekk ndax ku naan bëgg naa ba rek la nga nekk neexul yàlla xam na ko jërëjëf hmm. jërëjëf Cheikh Moustapha ci leeral boobu kon ñoo bokk internet yi ñoo ko bokk dégg doon hmm. noonu xanaa fi ñuy jeexale rek mooy tey ji gannaaw bi ñu jóge ci ziar bi hmm. jóge ci ñaanu waajur yi dëgmal li nga xamante ni wax dëgg yàlla mooy shahru ramadan gi tey lan ngay baaxe internet yi ak soppe yi am di jàmm yi nga xam ne saa su ne ñi ngi suivre li nga xamante ni mooy Amsa TV la télé solution waaw Cheikh Talla ku mënti doon ci àdduna mhm. bu dee bëgg nga rekk yàlla di la suturaal mhm. del faral di def yaa xannaan yaa xannaanu bu la neexee sax nga naan yaa xannaanu yaa mën mhm. <laughs> am na dayyaanu am na sultaanu nag waaye nag xannaanu mën naan ngay def trois cent treize rek danga nga gudda fan mhm. danga mucc danga mos mhm. yàlla dañ la suturaal doo gis lu la naqadi tayit danga sawar ci jaamu yàlla te seetaa la mhm. xanaa xamoo li dàq ci doomi aadama mooy bëgg baax te sawar ci baax am na ñu bëgg loolu nag wallaahi lazim waaw waaye dama ni nit lii tax nga man kon nag mooy sa moteur bi baax muy xol bi xol dafa am lu ñu koy entretien mm-hmm. am lu ñu koy vider. Mm-hmm. <laughs> xol yi nag li koy vider mi ngi fi waaye gaañu ñoo dematul vidage mm-hmm. wala fa ñuy vider baaxul <laughs> fa ñuy nag baaxul mooy fa nu war a seetaane lu baax lu bon lan fay fekk loolu kaa la xaw ma contact la xaw ma importe la <laughs> xaw ma communautaire la waaye kaa la billaahi wal kitaab setaa la mhm. man xam naa ni nit ñi bëgg nañu lu baax billaahi bëgg nañu yàlla xam na ko leer ngay wax kon nag sëriñ bi am nañu ay sens yu dul jeex mhm. pour yàlla sama borom suturaal leen taxawu leen dimbali leen defal leen tawféex te tawféex yu dul dara mooy allah bi zikrillaahi tan ma inul xulóob yàlla ni seen xol yi bu naree xomaag bu naree duggal leen ci xalaat yoo xam ne normaalut bu naree dem ba ngeen nara sax di ñàkk kerse seeni kilifa yi baa seeni kii na ngeen dellu ci di ma zikkar man yàlla mhm. di ma fàttaliku man yàlla te ngeen xam ni man yàlla maa fi nekk mhm. moo tax sëriñ bi kenn warul am problème yàlla xam na ko mhm. <laughs> ah, waaw moo tax loolu daal maa ngi koy dénkaane te it nu moytu tooñ ndax tooñ day toj gàllaaj <laughs> macha allah surtout loolu. tooñ waaw. Mm-hmm. di wax ni nag bég nañu. alhamdulilah seetaa la. Mm-hmm. gaa ñaa ngi nii suivre de. gaa ñaa ngi bég de. Mm-hmm. wallahi soppe yaa ngi ci àll bi. ndeysaan di nu woo sax ba sonn. foofu sax bëgg naa it nu dolli ci. ñi ngi dolliwaat sax moyen pour. jot gi di gën a yomb mhm. ndax léeg ni nu woote noonu ba sonn sax léeg sax tubaarkàlla na toog ci internet bi la naa neexul jot ak tubaarkàlla <laughs> waaye lu lépp nu wax mhm. euh, danoo comprendre rek mhm. te dañ leen koy nangul it nag ndax it yombut waaye sant yàlla rek lañ ciy def ak di ñaan sama borom ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci barke Cheikhu Tidiane Chérif radiyallahu taala mm-hmm. ci barke mag ñu baax ñi mm-hmm. yal na yàlla defal ñépp jàmm man daal l'essentiel ni mm-hmm. kan laa manul dégganteel mooy ki nga xam ni yarawul fas yéenewul am yar foye boppam te bëgg ma foye man Moustapha Dieye nanguwuma ko <laughs> xalaatuma ko it nag waaye noo mën a mel ci àdduna boo ñëwee rek ci yar ak tegin mm-hmm. wallahi lu ma la uuf xeb naa ko ndeysaan lu ma la téye xeeb naa ko lu ma la defal xeeb naa ko lu ma la ñaanal sax xeeb naa ko ndeysaan lii rek laay dénkaani Cheikh Talla mm-hmm. di wax ni it ni jaami yàlla yaa ngi leen di ñaanal macha di ñaanal tele bi mm-hmm. am saa yàlla na sama borom dolli ci barke yàlla na ci nit ñi gën a gis seen bopp yàlla na wér mhm. xam nga wér gi mooy lan mhm. xam nga am nga bët yoo xam ne baaxut mhm. xam nga am na làmmiñ yoo xam ne baaxul am na bët yoo xam ne lu nu xool mu yàqu dëgg la de yàlla nañ ci yàlla musal am na làmmiñ yoo xam ne lu nu xool mu yàqu yàlla nañ ci yàlla musal li may wax nag am na ñoo xam li may wax mhm. na ñoo xam ne seen i bët dara baaxul seen i làmmiñ dara baaxul lépp tooke la waaw yàlla nañ ci yàlla musal di wax ni mhm. télé bi nit ñiy toog naan yaanu tere xaru mhm. ay sëñ Moustapha yéenanu tere Mm-hmm. ba defunu lu ñaaw sëriñ Moustapha yaa tax ba ma teg sama ngànnaay jëlatuma alali jaamur mm-hmm. sëriñ Moustapha yaa tax ba ma am ak jàmm ak sama borom kër ndaxte dama takkoon samay bagage ba ma la déggee suma xel dal ndax yaa ma jox confiance ni ma toogal loolu aw ma fay ki waaye ñi ngi leen di ñaanal yal na leen yàlla dolli wér yéen ñii taxawul lii mm-hmm. yal na leen yàlla sàmm te taxawu leen suturaan ndax nag man war naa leen ñaanal te ñaan ngeen nii ñaanal dañ koy bokk waaye man war naa leen ñaanal ndax xam naa li ngeen ciy daj ba lii am mhm. surtout loolu macha allah yi ngeen jëfati macha allah ah jërëjëf Cheikh Moustapha nee naa na lu fi xew loo xam ne moom sa micro yi dañu koo takk sa bos bi di ñëw mm-hmm. moom dangaa dangaa dangaa léemu sa bopp fàttemaa léemu waale fi mu ne te nag <laughs> fi mu ne sëñ bi bu fekkee day léemu daal booy léemu waat ñu mbaa daal bu ñu mm-hmm. jógee nga fat ñu ci biir am noo def ñun dana ci baax insha allah sant la bu baax a baax gërëm la mm-hmm. ñaanalaat la yàlla suñu borom subhanahu wa taala moom mi am sañ mën tay def suñu borom dool laa taxawu dool la guddal saw fan gën a wëral cër yi mm-hmm. ba mboolem yéene yi nga xamante ne naalal nga ko askan wi mm-hmm. ak yaakaar wi askan wi am ci yow mm-hmm. sama borom jàppandal lépp ci daraja Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam barkeb mag ñi barkeb weer yu tedd yi nga xam ne ci lañ nekk ndax buñ génnee ci weer wi ñi di jeex nii ñu màggal ci Kazu Rajab ziar ci daaka def ci ziar général ñaanal ci waajur yi nar ko jeexal mm. koor gi daal di teruwaat kon mm. alhamdulilahi rabil alamin rek lañ mën a wax santat yàlla julliwaat ci yonentam bu tëddi balay salaatu wasalaam mm. te xam ne rek kon ñun suñu borom mi ngi ñuy bàyyi xel te mi ngi ñuy wan yoon yu wu ñu wuntu war a tege ba mën a daje ngërëmam ëllëg te muy yoonu siraatal mustaqiim kon mënta ñàkk ñu ñaanal la waaye itam ñaanal mbooleem internet yi Mm-hmm. mbooleem ñi ñu suivre mm-hmm. mbooleem ñi nga xam ne ñi ngi bëgg ci dégg sa kàddu mm-hmm. wala dégg kàddu taala bu laaj sëñ Moustapha ñoo ngi leen di ñaanal di leen sant di leen gërëm di leen wax ni kenn ku ci nekk lay bëgg-bëggam ak yéeneem ak mébétam suñu borom mi dul jeexal dara daal yàlla ko yàlla jàpp dara lépp ci daraje yonent yàlla Muhammad alayhi salaam ñaan di ngay faral di ñaan nag léegi man dama ko bëgg di ñaan man ñi ñi nga xamante ni fi dañoo gàllankooru mm. yàlla na leen yàlla gindi dimbali leen tegaat leen ci yoon wi ñi ne ci te yokku leen te gën a dëgëral seenu taxawaay ba nu gaaw a yegg incha allah rabbi jox leen dig daje incha rabbi taala ci beneen jotaay ak seen émission jotaayu xam-xam bi fii ci biir Amsa TV la télé solution ak mbooleem équipe technique bi nga xam ne ñoo ngànk liggéey bi yar na yàlla defal ñëpp jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa